avec ou sans Benno Bokk Yaakaar lu mu ci mënti doon daal pression bi nag bëri na lool ci kaw Amadou Ba yéenekaay bi di enquête ne Amadou Ba mii nag démb dafa dagg campagne bi mu doon amal daal di dellu ci Ndakaaru nag ginnaaw ab ndaje mu mu waroon a kii di président Macky Sall candidat boobee nag fi mu toll nii nag ay responsable yu APR nag dañu ko boycotté nag amut kenn koo xam ne rek yaa ngay def ay jéego ngir mën koo jàppale ci bile campagne Amadou Ba nag moom képp mooy doxal jamono ji nag bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Le Quotidien mi xam ne ne jamono ji nag APR ñépp ko woon ginnaaw démb lañu ko woo ci ndakaaru ci ab waxtaan wu war a séq kii di président Macky Sall yéenekaay bi ne état bu Louga ak bu saint wi nag dañu ko mujjee annulé l'observateur dellu soir ci ndaje moomee nga xam ne rek moo dox ci diggante Amadou Ba ak kii di président Macky Sall mu jëm nag ci ay lijjanti yoo xam ne rek moom la ñuy turóo mi doon lijjanti ginnaaw bi lenn ci ay cadre taxawee nag fësal seenuk ñàkk jàppale jëm ci candidat bii di Amadou Ba fi mu toll nii nag ñiy jàppale Amadou Ba moom rupture la ñuy sàkku ci diggante président Macky ak Amadou ko ci Vox Populi nag ma ngay xam ne ni candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi nag dafa dagg mitin bi mu doon amal ca Tiwaawoon niki démb nag daal di wutal si Ndakaaru ci ni mu gën a gaawee yéene kay bi ne moom candidat bi nag da sàkku ab ndaje ci digganteem ak njiitu réew mi nag waaye ñoom ñaar mujj dañoo toog démb nag bu ñu sukkandikoo ci bi la yëglekaay njiitu réew mi kay nag ma ngay jeexal wax ji tey laat nag soutien wam jëm ci candidat bii di amadu Ba ñu des ba tey ci amadu Ba ak caravane bi nga xam ne rek dagg na ko niki démb ngir wuy si kii di président Macky Sall yéene bi ne li ko waral nag kon na ci ñàkk a jàppaleeg APR bés bi le jour xam ne campagne bu dàq suuf lay amal jamono ji nag moom candidat bi nga xam ne rek démb convoqué nañ ko ci urgence foofee ca palais de la république tey jii la fas yéene wéyal nag campagne am ca diwaan bu luga ak ca diwaan bu Saint-Louis ba tey yéenekaay bi du ñu xamal ne état bu Sénégal neenal na pour pourvoi bi mu amaloon nag ca kanam kanamu cour suprême waral mu dippeeku suukaru koor pour Ousmane Sonko professeur Ahmed Ndiaye ne Ousmane Sonko nag mën naa voté ci élection présidentielle yu 24 mars yi lu dellu siwaat ak Sonko ci list électorale yi nag agent judiciaire bu état bu Sénégal ma ngay neenal la ñu ko doon toppee bu ñu sukkandikoo ci libération nag alintin Tine ngay xam ne daal ni ci fan yu néew rek daa ñu bàyyi kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye Rewmi Quotidien dellu suwaat ci dogal bi nga xam ne rek état bu Sénégal jël na ko ci pourvoi bi nga xam ne rek moo jëm ci neenal la ñu doon toppee kii di Ousmane Sonko ngir delloowaat ko ci list électorale yi lu jëm ci programme yi nga xam ne rek candidat yi ñu ngi koy becc ci jamono nag Walf Quotidien ca la dellu suwaat ni ki ji mu jëm ci wàllu éducation mbirum santé industrie beeg emploi bi nag ak yeneen ak yeneen Thierno Alassane Sall nag ma ngay ay projet yi nga xam ne rek bés bu ñu ko falee ci bopp Sénégal mooy li mu fas yéenee doxal keneen ki fas yéenee leneen nag bokk na ci Jomaay Fay mi nga xam ne rek daa bëgg a indi ab monnaie locale loolee nag Khalifa ko cay tontu ci biir yëglekaay bi Déthié Fall nag démb waa ko wii loolee moo xëy daal di ciy dellu siwaat mu di campagne électorale boo xam ne rek fukki fan juróom ci la ko candidat yi fas yéenee amal war a dagaan nag lu toll ci ñeen fukki département ak juróom benn naam bëri na ay jafe-jafe waaye nag candidat yi xam ne nañu ci biir yëglekaay bi nag ne dinañu def seen kéem kàttan ngir mën a matal seeni bëgg-bëgg ci kaw askan wi ci jamono joojee nag le soleil yëglekaay ma ngay dellusi si nag ci xeex bi nga xamante ne nii daal dafa jëm ci feebaru bët yi nga xam ne Sénégal taxaw na ci ngir wut ci ay saafara yëglekaay bi ne centre ophtalmologue bu sali nga xam ne rek dañu koo tabax ci superficie bu toll ci 3000 mètres carrés dugal ci lu toll ci 3,5 milliards ci suñu xaalis danañ